Thank you. leen mbokk ñuy seetaan euh, ci euh, Senejet seen émission bi di grand public te ñu koy amal ay bés jot di ci dalal ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllug euh, politique walaat ñoo xam ne seen xam-xam da cee màcc. tey ñoo mbégte bu yaatu di dalal musa Sarr muy responsable politique ci benn Bokk Yaakaar nekk fii ci département bu Mbacké ñu fas yéene nag waxtaan ak moom indi ay leeral ci génn bi nga xam ne Omar Ndiaye Angloma génn na ko wax ko. jël ay cadeau tek ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable politique yi nekk ci département de Mbacké lu ci mel euh, le maire de Mbacké Galoba ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax na ko loolu yi nag Moussa Sarr dina ci indi ay tontoo ki leeral Moussa maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog suñuy internaute waaw Seydina Alioune maa lay nuyu bu baax di la remercier si invitation bi nii di profiter si occasion bi aussi di nuyu bépp responsable politique bu nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar notamment le directeur général Michel Galoba et de remercier aussi qui nga maintenu moi ce directeur moi Pape Chafal, qui yi maintenu il fait partie des gens qui ont guidé nos pas dans la presse parce que faut pas une fois que ni aussi j'ai une formation en journalisme et communication mhm. Et beaucoup na si ñi nga xamante ni moom peut-être euh, soo defee métier bi nii mën nga mhm. donc je profite de cette occasion là pour euh, remercier aussi conseil conseillers pendant que j'étais élève mhm. donc de passage aussi di rafetlu ligue bi nga xamanteni koy def pour participer au développement de notre localité mhm. parce que la communication aussi c'est très important mhm. voilà comme euh, niñ ko waxé rek euh, ci introduction bi waaye nak lepp une coalition la Benno Bokk yakar Omar Ndiaye Angloma ñu def ak moom émission am kàddu yi mu yëkkati jëm ci défaite bi nga xam ne am ngeen ko ci élection législative yi ñu génn wax ne kat yéen responsable yi la dem sax bay joxoñ baaraam euh, le maire de Mbacké galo Ba loolu yow nan nga koy layale waaw bu ma sañoon nga wax ma carrément ne ma. bi mu joxoñee baaraamu tuuma. le maire Gallo Ba lii la wax ci moom. par exemple investiture yi li mu wax mooy da ngeen a sacrifier Daba Diouf normalement DG Gallo Ba moom moom lañu waroon investir moo waroon a imposer wu jàkkaarloo ak lu ci mel ne Abdou Mbacke Ndaw gi mel mais dafa rasu xam ne kat bu demoon defit bi day gën a ñaaw. lu tax élection législative yu mujj yi nga xamante ni moom mu ngi woon ci liste yi moom ak Abdou Mbacke Ndaw lu tax moom waxul ne dañ ko sacrifier ci élection yooyu lu tax élection yooyu noonu waxul woon ne Gallo moo war a jiite liste bi. parce que mon muy woon ci liste parce que ça l'arrangé tey nekkul ci liste arrangé wu quoi? ne dañu sacrifier ki ñu ci liste ça c'est un faux débat beneen bi ci topp mooy yéen ay journalistes ngeen je pense que ni l'idéal serait de lui poser la question mom, en personne ngeen la ko élection locale fu mu fan la battre campagne yow gis nga ko élection locale Mon ne fan mu ne fii la nekk ñi naan dafa dem euh, Fuuta pour jàpp nee sax xamul Mame Boye Diao. kenn ndax mu ngi woon fii. kon baatuwul campagne bu baatuwoon campagne yéen ngeen gis ko. yow gis nga ko sur le terrain sur le champ politique lors des élections locales tu l'as vu soo ko gisee ne fii laa ko gis soo ko gisee ne ma meeting bii laa ko gis soo ko gisee ne ma responsable yii laa ko gis mu àndal àndut ak kenn campagne wul élection législative yàggul barki démb la woon yaa ngi woon ci terrain bi ñu la doon gis. tu non honnêtement nañu waxante deug ndax gis nga ko mune mom mom moom ñi bot parti bi ci la Bok, ñu bot parti bi ci nga bok nga deuk mbacke parti bobu nonu investir ay nit ñuy dem ay élection bokko ci ñom taxaw woo leen defoo sa moyen campagne defo dara élection jeex nga génn pour wax pour lan ces gens-là ne devaient pas avoir droit à la parole deug naa ko mu ne bu ñu à la présidence on a donné la parole à des gens qui devaient pas parler xana mom bokul cabinet président so bokkee cabinet président looy xaar ñu lay dugal ci liste kooku da ngaa war a wax. Mhm. cabinet président nga bokk président di recevoir waa Mbacke pour man sax ya yaa war lisi. defar liste yi si yoon boo nekkee cabinet président ñuy recevoir sa ah non man pour man yaa war dalal sa waa dëkk ba pare wax introduire leen ñu pare nga recevoir leen ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom joxewaat ay orientation ñu mais ban cabinet nga nekkoon il faut qu'on arrête fii ku fi jaay new da nga war a wax am nañ luñ la tontu. Macky Sall bim soxla dafa waaf élection locale battrul campagne élection législative battrul campagne il n'était même pas à Mbacké de fi yeen da ngeen ci terrain bi ko wala def wala def il tarit des à Abdou Mbacké Abdou c'est notre adversaire politique kon so ne si ñun ba pare dem di far fenen, tu on peut pas vouloir quelque chose et son contraire. comme vous que non li wax ci Abdou Ndaw euh, bi que ak dafa gis Abdou kat am coalition Benno yakar, mais pas dem di ak Je mm-hmm. Abdou Ndaw député. dans un premier temps dafa ñëw coalition Benno que yakar. Moso dégg moso couvrir Abdou je Ndaw def déclaration que la dem durant li mu nekk maire yëpp ba mu jeex moom mu def ay mig magam dem ànd ak moom ñu dugal leen ci liste ñoom ñaar ñu dem on a perdu te boobu mu ngi ci woon ba mu ciy nekk boobu moom 2009 bi muy ndamoo xanaa boobu Maguette Diakhaté nekku fi 2009 xanaa boobu yi yeneen responsable politique yoo xamante ni tey nekkuñ si ay ay Tafa Amar ay Ablaye Diop ay Sëñ Mbacke fay ñun c'est des yu fi nekkoon. Mhm. pourtant dañ leen bàyyi fi ñoom ñëpp moom jutoo dugal ko ci ay liste. Mhm. kenn waxul dara ñëpp baataral ko campagne gañewut ñu dugal keneen ci liste moom baataralu ko campagne génnut élection locale dafa laaj ay dañ ko laaj ay kayitam joxewu ko loolu mooy dëgg. laaj ngeen ko ay kayitam. joxewu ko je prends à témoin Youssou Loum il va pas dire le contraire de ce que j'ai dit on lui a demandé ses papiers kenn du ko fi xaar il est quoi il est du du star du lenn lu war a tax ñu tok diko xaar ba ñuy for kulo wala leneen c'était ça son ambition. on a pris nos courage notre courage à deux mains. Mhm. ñu defar les listes sans lui. on est allé aux élections on a gagné. il se permet de dire que euh, élection yi ni mhm. Gallo lu tax mu mu mu gagner ay élections en moins de six mois il perd amul électorat bu mu téye. Mhm. mané ko su dee cabinet présidence la nek na wax président mu xolat la commune de Mbacké donc moi, c'est pas un bon conseil. parce que mon analyse mais comme il n'est pas là c'est un absentiste, c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités du mun a xam li xew si dëkk bi pour rendre compte fidèlement au président. Mhm. mais yéen yéen tamit est ce que yéen a ngi koy euh, consulter di waxtaan ak moom ci parti bi ci bi ndax anglement lu ñu mënte wax it wax dëgg yàlla fidèlu euh, APR la. koy consulter ñi nekk ci dëkk bi ñëpp bokk si coalition Benno Bokk Yaakaar amul dara lu ñu def loo xamante ni woowuñ ñëpp ñu toog autour d'une table. yéen a ngi koy woo mais ma ne déggoo lu ma la wax ñi nekk ci dëkk bi ñi fi toog ñu leen di gis. lu mu leen saay dama ne. Hmm. il est kii pour ñuy daw si ginnaawam kenn du ko def ni ñuy informé moromam yi noonu lañ koy informé ndaje bu mos a am informé nañ ko montage comité électoral informé nañ ko lu am dañ koy woo téléphone informé ko du ma wax dañ koy woo galo ba da koy woo informé ko ñëwoo loolu lan nga bëgg ñu def il faut qu'il arrête au sortir de chaque élection mu bëgg attaquer attaqué galo ba kañ il pense que ni les gens ne peuvent pas lui répondre on peut bien lui répondre am nañ luñ ko wax Parfois, on ne juge pas nécessaire ou on ne juge pas opportun de répondre à certaines choses parce qu'il y a des choses qui sont devant nous plus importantes que ça. Nous focaliser aussi l'eau. Mais demandez, nit soo nekkee ci dëkk nga dans nga parti et puis tu te réclames pionnier de ce parti là. parti bon nous su amee sa lu dans la dem ay compétition tu dois mouiller le maillot. mais je prends à témoin les journalistes est-ce que vous l'avez vu battre campagne que ce soit local ou législative su amee nee leen ma fekk nañ ko fii mu meeting wala woote na ou wala def na wala il l'a pas fait def bruit il attaque Mahmoud Saleh pour dire que moi, ouais, je connais pas Mahmoud Saleh Moi mhm. j'ai un leader politique j'ai un responsable politique qui s'appelle Galoba mhm. tout ce que je fais en politique s'articule autour de cette personne là mhm. mais c'est Mahmoud Saleh qui l'a fabriqué en toutes pièces ah ñaata yoon ngeen fi toog mu mu mu wax ay Mahmoud Saleh wax problème c'est quoi le problème entre moi et Mahmoud Saleh il le dit il n'a qu'à le dire Mahmoud Saleh moo nekkoon protégé moo nekkoon xaritam moo ko dugal sax foofu mu ne foofu la ne bu dee foofu la ne mais tey mu taxaw di leen ko attaquer. mais tamit ndax jàpp nga ne yéen seen coalition bi lii dina leen euh, jëriñ lu bari bu fekkente ne ñii dañuy far fii di wax ñee far fee doo te yéen ñëpp ngeen ne président Macky Sall ngeen di défendre ngeen jóge ci election yi war a mën a booloo taxaw xoolaat ngeen di préparer 2024 ñi di mer di wax fi ñi di wax fe dem sax bay tud ay xaaliss ak yu ni mel li ndax japp nga ne jëm na fu baax pour coalition bi bo xal ñun ragal on n'a pas peur du débat ragaluñ waxtaan wi mhm. da ngay ne mbiru xaaliss da ngay ne li la wax ci mbiru xaaliss ñu tontu ko bu dé dafa wax ci mbiru xaaliss bu dé keneen daf ci wax mhm. nga ne ma diw mo ne li ci mbiru xaaliss ñu tontu ko non coalition bi likoy jëmal fu baax wala leneen lolu c'est le président Macky Sall qui doit régler ça parce que mom mo yor parti moy chef de parti mm -hmm. ñun dañu nekk si dañu nekk ay responsable politique maanaam ki ñu c'est un responsable politique personne ne peut faire l'unanimité autour de lui mais li nga xamante ni moo ñu war ci parti bi ñu ngi koy def Seydina mu bëri mu néew yaa ngi bëgg a yàgg ci milieu presse ma depuis 2014 au sorti des élections locales ba nit ñëwaatee ci ay élections ban responsable moo fi nekkoon di animer parti bi au nom de la coalition Benno Bokk Quand kan moo la daan convier ay manifestations ngay ñëw di ko couvrir parce que fii lu fi xew couvrir nga ko pas responsable qui a animé parti bi pas responsable bi a doon si ce n'est le directeur général monsieur Galoba amul honnêtement kon parti wala parti est-ce qu'il ne pouvait pas faire comme les autres au sorti des élections locales de 2014 il n'avait pas perdu les élections il a perdu au lendemain il a retroussé ses manches pour descendre sur le champ politique Il a population yi gën a wa dëkk bi lolu moko may tay élection yow soxla dinañ la jox ñu def il a été plébiscité mu gagné. analyse bi dafa a des analyses objectives lan ñu législative buñ jël ne Gallo nekkul woon ci ay liste du dëgg. Mm-hmm. kam moo defar ay liste fii xam nañ président moo defaral boppam ay peut-être il va consulter certains responsables waxtaan si ak ñoom mais président mo défar ay listam Mbàkke nek dëkk bi nga xamanteni mom le président ñëk wax sen tête de liste muy Galas le bi président di gane ji di séti xalif bi bi mu nekkee bi mu demee si le né Galas Kaltoum mooy tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau du département de Mbàkke du dëgg loolu c'est le choix du président so nekkee cabinet président kay tu respectes le choix du président et quand on respecte le choix du président on descend sur le terrain politique su ma la déggee ngay wax dafa mel ne euh, Omar Ndiaye Angloma moom euh, taxawaayam dal ci coalition benn bokk yaakaar ci département bi rawatina commune bi gisoo si njëriñ. durant ces deux élections yii nii jàll. moom nekk c'est pas une voie autorisée local baaturul campagne nekkut fi woon kenn gisu ko wax su amul yang si yaa ngi couvrir lépp da nga naa ma Moussa li ngay wax amul parce que fekk naa ko fii. wala gis naa ko mu def lii. amul élection législative barki démb la jeex fàtte xaju fi lu fi def. ndax wàcc na ci terrain bi ndax jëm na convaincre population yi tout ce qui se fait pour toi et sans toi n'est pas pour toi. kon mom dafa bok ci ñi nga xamanteni ño xagn xañ Macky Sall parce que jàppale wu ko su ko jàppale woon dafay nekk ci terrain politique bi ñukoy gis. pourtant moom dana yeen yeen ñi yeen ndax président Macky Sall wax na ci xaalis bo xam da ngeen koy jël fi ngeen ko wara def du ngeen ko fa def. Macky Sall bu amee ñu ko faral ci dëkk bi sëriñ bi la ak ay mbokki pëlam dem na sax ba wax loolu ne yéen da ngeen ànd ak président rek mais seen intérêt bopp tax ngeen ànd ak moom. waaw mais dama da nga naan ma carrément. la wax ci d'une manière claire daf si indexé le directeur général Galoba. nga ne ma carrément parce que tamit. bëgguma trahir ay propos nit damay bëgg lu may tontu nit mu nekk lu mu wax carrément te comme yaa ko tàllal micro mu ya wax yow ay waxam tu me donnes ça d'une manière claire et je te réponds d'une manière limpide li mu wax mooy 20 millions 25 millions du xaalis bu dee loolu lañ leen jox pour campagne président maanaam Gallo Ba waroon na ci teg lu tolloog yeneen millions pour maanaam mën a battre euh, campagne ñi mu waree mais waruñu jël xaalis bi di ko lekk te duñ ko jox askan wi ko yeyu malheureusement on n'a pas de compte à rendre à Angloma parce qu'il n'était pas là bu fekkee ñu bokkoon ci. comité électoral bi tey ñoo toog soulever question boobu noonu toogoon fii battre campagne bi xaalis ñëwee ñu ne lii moo ñëw fii ak fii lañ koy dugal ñoom ñenn responsable jël ay engagement génnee ñoom xaalis def ko si ñooñu responsable yi toogoon ci table bi ñooñu mun nañ leen rendre compte mais Angloma du ku ñuy rendre compte parce que gisuñ ko woon ci élection yi bés bu toogee ak ñun ay élection ànd ak ñun ay élection ñu pare ay élection s'il demande des comptes dinañ ko ko rendre mais tey tey tey tey tey amuñ pour rendre ko compte ci dara ci lu ñuy def waaw loolu mooy dëgg maanaam daal euh, comme li ma waxoon euh, ci loolu laay taxaw ba léegi Moussa daal yow da nga minimiser Angloma ak propos yi nga xam ne nii wax nga ko ndax DG Gallo Ba warul dem envers lui tamit waxtaan ak moom parce que lii li ma wax rek du leen jëmee fu baax. non gis nga tamit nag euh, Seydina Aliou gis nga politique la politique c'est pas une religion politique du tax aussi nit ñàkk li nga xamante ni mooy sa dignité wala mooy sa personnalité devant l'impossible nul n'est tenu lu mës xew waxtaan nañ ci ak moom nit su bëggul ànd ak yow bëggul ànd ak yow nit su nekkee benn nihiliste loo def il voit le contraire de ce que tu as fait kooku lan la da koy bàyyi moom mu gëm lim gëm mais dama ne sooy wax aussi nga boole kook wax li nga xam mooy am Anglomane ne peut pas parler des élections à Mbacké parce que xamut li fi xew soo ma waxoon tey kenn ku xam li xew si élections yi nekkoon au cœur des choses tey moo génn am def benn déclaration dinaa ne kii xam na lu ma xamut mais ku fi nekkut nan lay waxee yéen sax xaj na la yalla may ngeen yor micro ku len neex ngeen talal mbur mu wax mais c'est même pas une voix autorisée waru il devait même pas parler il est un responsable. non un responsable qui n'a pas un responsable bu bu dëkk fan Mbàkke mhm. bokk fan coalition Benno Bokk yakar bokk cabinet du président mhm. ñu jëm ay élection législative Macky Sall xam n'iko élection yi ñoree woon mhm. yow nga né protéger Macky Sall nga ma japp ne kon xana da nga wara wacc deuk ba campagne man len di delloowaat laaj bi ndax gis ngeen ko mu campagne

fekkee nga wala fekkee woo xam nañ lu muy saf waaw duñ seeti keneen wala éternellement moom lañ fi war a teg ñu génn si ay élection barki Demba Ndiaye Mbacke gépp ñu taxaw ñu ne Gallo Ba mooy maire Mbacke tey il faut au moins respecter les gens ak ñi ngay àndal munoo lu génn nga ne yow lañ koy jox loolu su amoon tey ñu taxaw ne galo mooy attends mais ñi ci des ñoom xanaa ñoom waru nekk dara mais il faut qu'on ouvre la porte aux autres parce que c'est des gens yu nga xamante ni tamit ñu ngi ci parti bi mm-hmm. léegi nag ndam yàlla moo koy joxe on a perdu mais on a au moins on a eu am nañ de def la promotion de certaines personnes on a tenté ça n'a pas marché on va continuer à tenter moom dañ ko tenter, ça n'a pas marché ñu tenter Kenen, li mu waroon am mooy mu am honnêteté wu ba mu ñàkkee nit ñi dem félicité ko ba mu les gens ont mouillé le maillot ànd ko ak moom moom xam na li may wax bu baax parce que am na si ay combat yoo xamante ni bi muy soxla moom ñun ñaar ñoo ko ànd man ak moom man kay seen seen ñagas ñagas diggante ak kamu laa xamul fan la jóge parce que mun diggante ñi nga xam ñoo dekkee galoba mun nañ wax sax galoba ak angloma problème bi dëgg dëgg waroon nañ xam nag fan la situé wu non amul problème parce que dégg galoba wax dara si angloma mu galoba mos nga ko micro mu waxal la dara si angloma lu négatif mm. mosoo ko dégg ndax mos nga dégg galoba attaqué benn responsable politique bu nekk mbàkke ah te chaque jour ñu attaqué ko ñu noppi pour lan loolu nag fi jeex parce que Galo ba aussi amna ay nit yu muy andal yu xam li def xam feul la ko Mbàkke toll xam ban yene la am si Mbàkke dañuy baye ay nit rek bo wëree di dëkk yi ba sonu rek bo ñëwee tok ñu tal le micro rek nga né Galo ba boo ñëwee rek turu Galo bi saf sa làmmiñ bi rek nga né loolu mo fi jeex loolu mo fi jeex on va plus permettre ça à ces soi-disant responsables là yo xamante ni ils passent le plus clair de leur temps ailleurs ñun ñu nekk fi di rey suñu bopp au niveau local soo ñëwee micro mbàkke yi bëri nañ tele yi bëri nañ rajo yi bëri nañ après yow tànnoo kenn nga ne ma tànn galo moom daal laay attaqué ku ko fi defati boo ko defee timis buñ noddee gee ñu ngi sa kaw waaw mënuma toog ak yow ba jóg te waxuñu sax ci gala bu moom ma nga xam ne moom mooy euh, maire bu ke war a nekk 5 ans ñu koy ñaanal nag yéen bi oyof te réalisation yi mu bëgg yëpp mu matale ko ah nit ñi nag euh, dañ koy xaar yow euh, jege ñaaleem nga te gis nga dëkk bi ñëpp ni nga waxee bi élection jotee dañ koo jox ñu koy xaar nag ndax am na loo xam ne mën nga koo mën nga koo junj ci loo xam ne DG Gallo Ba pare na ko pour taxawee alcool ci li nga xam ne mooy commune bu Mbàkke merci Seydina je pense que ni c'est la question la plus pertinente

dem outil ay partenaires à travers ces relations ñoo def ko je pense qu'on a démarré lolu commencé nañ ko Seydina ñu dem invité wuñ la fi euh, distribution de dons de voiture ay auto balit ak ay camion vidange non bala ngay euh, man nak duma duma jot duñ jot seen invitation du ngeen ñu convier seen ay ndaje xaw ma en tant que loolu dama lay wax yëg nga ko mm-hmm. kon en tant que journaliste parce que journaliste sama jàpp le journaliste il doit aller vers l'information je pense que tu vas vers l'information je vois même que parfois, il y a des manifestations yoo le convier mm. mais à travers ces recoupements tu traites l'information donc toi tu es omnibulé mm. par le juste informé juste et vrai voilà maintenant pour revenir c'est sa question Moi, mm. ndax déggoo ci que bi ñu ne la Gallo millions yuy jari ay millions def à la disposition de la mairie de Mbaké. ci loo xamante génnul ci budget mairie de Mbaké. Mm-hmm. c'était pourquoi Mbàkke amul hôpital boo xamante ni wuyu na ak normes yi. tey Mbàkke nekk dëkk bu nga xamante ni buñ too xefoon tuuti mu bokk ci dëkk yu gën a tilim ci Sénégal tey xam ñëpp xam nañ ne tilim àndul ak wérgu yaram. Hmm? mu dem indi ay oto pour ñu def ramassage d'ordure d'abord en attendant ñuy am hôpital loolu dina ñu permettre au moins ñu atténuer nit ñi ni ñuy feebaree. Hmm. tel microbe wala leneen di ko causer. oto yi di daw si dëkk bi loolu du mu nekkoon demande sociale. oto ñu ngi daw oto yaa ngi si dëkk bi di daw. mu nga génn nga dem xooli ko loolu nekkoon demande social boo xamante ni population yi dañ ko doon wax que Mbàkke dafa tim ñu leen di fayloo sax pour ñu fay di fay xaalis pour mbalit dem mu jë mu ne loolu dafay jóg oto vidange yi ñëw si dëkk bi loolu noonu ma ne la jëlewuñ ko si budget bu Mbàkke si ay relation am la si ay xaritam la si doole boppam. ak ay nitam yo xamanteni ñoko jappalé ci loolu mu du premier pas. don DG waaw ragaluñ ko bind. parce que non tu sais pourquoi. Mm-hmm. parce que bu fekkone lu mairie bi def la. Mm-hmm. dañ koy def mairie bi. si mairie bi dañuy am explication dañ ko ko tamit dafa yi. Mm-hmm. ne jënd ay mbir ci à la disposition de la mairie de c'est pas une courtoisie ça il pouvait ne pas le faire et il l'a fait hmm? nga nekk nga ne da nga nekk cabinet président loo mos a jëlee foofu noonu rek lo xamante contribuer nga ko ci dëkk bi nit ñi di ko gis muy dox ci dëkk bi ñu ne lii lu defal dëkk bi la diw moo ko indi ci dëkk bi xam nga Abdou Mbacké Ndaw noo ko bañ bañ bañ nangul ne daan na indi ay ambulance ci dëkk bi noo ko bañ bañ bañ nangul ne nekk na maire maire Mbacké te il a fait bëri na néew na am na mais nangu ko mhm. parce que nit du nekk nii lis il a fait son temps, il est parti à la tête de la mairie. Aujourd'hui, il revient en tant que député. Mais nous koy souhaiter plein succès, tu sais pourquoi Au grand bonheur des Parce que nous non la nous galo tàggatee ci politique. Il est la première personne à féliciter non hmm? bokk ngeen nous ñu ko jàllale. Mm-hmm. loolu lan la grandeur la ñun noonu la ñuy politiquer nekkuñ fi pour lu nous wax ñu cher. xeer lu wax ñu ne nañ jàmmaarloo pourtant mën nañ ko ñun ak ñom la woon fi ci dëkk bi. 2014 ñun ak ñom la table bu nekk. lo nañ ci ak ñoom. dañoo nous dëkk nak mënuñ dëkk ci ku wax ñu ne dañuy xex ku wax ñu ne dañuy def fi ñu wax di xaar comme question bi nga wax. moy nous mbacké changer mbacké changer le visage de nous je vous donne rendez-vous. ñu ngi doga 6 mois. Seydina bu nous 1 an ngir yàlla nañ togaat ñu émission. Ah, surtout ndaw ñi dañu dañ leen di xaar ndaw ñi dañu xaar euh, le maire galo bu baaxa baax. motax mané la. Mhm. ndaw mom ku koy wax. Mhm. ci ci ci côté galo mhm. war nga mëna xamné il a beaucoup fait. pour les du côté des jeunes. il a beaucoup fait du côté des femmes. lolu nak lan la yéene la. lolu lan la ambition la. mais mais euh, Seydina. dama ko wax dembo ci ben plateau. mané galo c'est le seul directeur général boo xamante avant ça muy nekk maire. boo xamante il n'a jamais pris de vacances au Sénégal dem à l'étranger. chaque week-end mu ngi Mbàkke jour ouvrable mën na fi def trois jours depuis mon nekk maire c'est l'un des maires les plus présents dans leur localité foo dem fekk ko waaye sa waay mënuñ laa dénk dëkk nag ñu naan diñ koy woo téléphone duñ ko jot duñ ko dee ñu la déggee dëkk bi ngay toog si jagg yi ku la woo téléphone jot la fu la nit bu ngeen ko kon xanaa doo liggéey dëkk bi Mbàkke mun nañ laa dénk nag de mais dañ lay teg bët te ñun xam nañ ne Mbàkke dañ ñoo dénk te ñu ngi ñuy xaar te si liñ ñuy xaar ay résultat la du ay wax te ay résultat ay waxu kese yoru ko c'est des actes que tu poses c'est des réalisations que tu vas faire ñun ci loolu lañ nekk mais nag nekk ci loolu taxul ñu ñàkk mën a bañ a tontu ñu xamante nañu fii Mbàkke lu fu waay génn wax mën nañ faa génn tontu la te foofu lañ toll ak ñoom. Mhm. ku mel ni moom mii nii ngeen invité démb. foofu lañ toll ak moom. Moussa mbégte bu yaatu lañ amoon na pour euh, dalal la comme ni nga ko waxee ci Pape Cheikh noonu lañu koy waxee si yow ndax euh, avant ñu ci dugg ci métier bi doon nañ la suivre gis la sax ci ay point de presse yu doon am vraiment nga defoon mbégteet bokkit ñi nga xam ne poussé nga ñu pour ñu dugg ci métier bi mbégte gu yaatu nag la ñu amoon na pour euh, dalal la ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. voilà Seydina man tamit maa ngi lay féliciter. Mm-hmm. et en tant que jeune. nekk ci milieu bu sensible. muy milieu de la de la presse.

mais pour ñu defar dëkk bi il faut mu am ay débat contradictoire débat contradictoire nak bokkul ak acharnement ñun dañ am leader am un responsable politique bo xam dañuy and ak mom on va pas permettre à certaines personnes mal intentionnées à tout moment ñuy génn di am yo xamanteni mom lañuy wax parce que nit koku du tontu du tontu mais amna nit ñu muy àndal ñoo xamante ni mën nañoo tontu après nañ ñu taxé lu nekk mais dootuñ mayati kenn ci Mbàkke saa yo wëree dëkk bi ba sonn bo ñëw tok ñu tàllal la micro nga né galoba té te koy xëpp lépp Nek lu négatif te la ngay seq ak moom ci lu baax doo wax xaayaan ku dégg séeréer merci jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen doon seetaan Moussa Sarr la ñu doon dalal muy responsable politique euh, APR ci coalition benn bokk yaakaar a nekk fii ci département bu Mbacké ñu amoon mbégte bu yaatu di ko dalal di sante mbokket yi nga xam ne ñu ngi doon euh, seetaan ci Erl Original nekkoon ci cadrage bi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen invité jërë ngeen jëf